sama doom entré na hôpital ma fekke benn dee bu ma yiim benn xale bu góor buy sukuraat sukuraat bu metti ñu wooma fekk maa ngi ci jàkka ji ci hôpital Dantec ñu wooma ay waxtu yi ma daw ñëw maa ngi fekk waa muy kadd kaddi ma ñëw tiim ko ne kii day dafay sukuraat mais lan lay wax yaay baal ma yaay maa la tooñ yaay sama xol lakk lii lay wax yaay baal ma yaay maana tooñ yaay sama xol ngi lakk yaay baal ma ba waa saal bi dañoo daw génn dañoo daw génn benn paane ma jàngal ko yaasin ma ne ko fii yaasin munu fi dara yaasin munu fi dara ki ko fa teewoon nekk moom daw kooku kan la jabaram la nekkaloon ba mu mettee jabar ji daw na ndeke jabar ji da génne këram kër yaayam mu nekk ci kër yaayam jabar ji jékki ba nar caa jaay ndax ko ba génn mu luwee ji appartement yaa ji dund waajee yoroon dund yaayam topp jabar ji mujj bàyyi dundal yaayam yaayam dafa mujj day yelwaan ay rakkam yu ndaw moo doon fay seen jàng rakk yi amatuñu ku leen fayal rakk yi nekk ay doxandéem nekk ay orphelin mu dem topp jigéen nekk ak moom ci appartement su yaayam ñëwee mu saaga ko jànni ko lu ne mu wax ko yaaji keroog bi muy dee loolu lay wax ci suñu yaaji bi lii lay wax ba sedd man mii maa ko toppatoo defar ko benn fan lañ def avant timis yaayam ñëw ak yenn frère am ay mbokk doomu baay ñooñu ñëw biñ ñëwee ma ni kan mooy yaayam ñu néew ma ne diw de da doon wax yaay baal ma yaay jéggal ma yaa ngi jooy jooy yu métti ne woy ñàkk naa ma ne ko meer ñàkkuloo kii li mu def santal yàlla ñàkkuloo ma nettali ko affaire bi mu billaahi meer bi daj ma ni ko staff yàlla de ko baal billaahi loolu la ko wax xoolal li def yaayam ak li ko yaayam foo wax oustaz wax yàlla dina ko baal ma ne ko bu ko jéggale yàlla bu ko jég wallahi kon la wax oustaz sax kii yàlla dina ko baal yaayam gisatul lam ko def mais àjjana la ko yéene léegi àjjana la ko yéene oustaz ndax kii yàlla dina ko baal ma ne ko boo ko baalee amal na yàlla baal ko mu ne oustaz kii lépp lu ñuy def nit ci lu bon sama doom ji def na ko waaye jabaram moo ko ko def loolu jabaram moo ko dox suba digganteeg sama doom ba tey sama doom entre di dee yëguma ko sama doom entre di dee yëguma ko naa tey mbokk yi yaay ni mu mel yaay ni mu sonnee ci yow yaay li ko dal ci yow ay métit yonent bi ne ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna bala ya rasul allah al ishraaku billah wa uquqa al walidain fa kaana muttaki'an fa jalasa fa qaal alaa wa qawli zuur alaa wa shahaadati zuur kaay leen ma wax leen bàkkaar bi gën a rëy sahaaba yi ni yonente bi bàkkaar boobu ban la ban bàkkaar mooy bi gën a rëy yonente bi ne al ishraaku billah bokkaale ak yàlla mooy bàkkaar bi gën a rëy ñu ne ko ak ban mu ne wa xuquuqil waalidayn suufeel yaay toroxal yaay suufeel baay toroxal baay ba ci yàgg yonent bi ne bërit jóg wa kaana muttakian fa jalas mu jóg toog wa qaal ala wa qawli zuur ginnaaw bokkaale toroxal yaay baay moo gën a bon waaye wax caaxaan di comédie ak di déglu musique wala di tëgg mooy wa shahaadatu zuur sahaaba yi ne fa ma zaala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat yonente bi dañul di wax lii di ko wax di ko baamu ba sahaaba yi ne aka neexoon yonente bi nopp mbokk yi borom bi ne waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara wa bil walidayni ihsana mbokk yi suñu réew fan la jëm lebal say wayjur moom lañ lay fay ngal la moytu sa yaay jooy yaay kenn du ko jooyloo moo ëmb juróom-ñeenti weer wasin xaboo